macha allah ñu dugg si benn actualité boo xam ne nii su guddi dañ ko gis si réseaux sociaux yi lool lool ñu entre Papa Boy ngi naan dañoo divorce mhm. non sama xalaat rek laa si wax xam nga Papa Boy jinne ak Ndeye Gueye mhm. liñ leen divorcé si réseaux sociaux bi waaw bu doon lislaam la seen sey daganatul ah! loolu rek laa la si mën may nag ndax ku jug nee lan. dégguloo ma man loolu laa la si mën a may ma dolli. ma ne papa booy jinne ak Ndeye Gueye. Mhm. liñ leen divorcé si réseaux sociaux bi. Mhm. bu doon réseaux sociaux bi lislaam la. Mhm. seen sëy daganatut. ndax lan wax laa la wax. dégg la laaj mais ndax lan. dégguloo ma dégguloo ma. li ma la wax kay ni ni am xel dinañ ko dégg. mais dañoo divorcé foofu divorcé amu fa. ñi ngay sey ñoom divorce bi ñoom la si seen gémmañ kumba dañuy émission nag xaaral ñu pare demal toog ne ñu pare rek jox la sa appareil toogal noonu dégg nga bul wax bul wax may ñu wuyul wuyul kumba wuyul xoola wuyul kee wuyul doo wuy xoola buñ paree du ma la jox cent franc cent franc yaa ngi nii gis nga ko nii xoola mi ngi nii gis nga ko nii xoola mi ngi nii xoola voilà du ma la ah may wax ak yow faale am am. wax jërëjëf sax. Hmm? loolu laa la si mën a wax ko kon yow information non déggloo ma waa làmb waa làmb ñooñu toogoon di œuvrer jël seen temps. micro bi ñooñu toogoon di œuvrer jël seen temps. ñoom ñoo nom Ndeye Gueye laa wax ah. Ndeye Gueye may naa ko ba pare duñ ko may keneen booy Ndeye Gueye man maay càmmiñam n'est-ce pas wala xamoo lool booy xam nga ñun xam nga topp kaa xam nga ko non topp kaa koo fi gis muy def kaa di toog nii di wax kee di wax maa ngi Ndeye Gueye ñoo ko fi njëkk a def ci senegal ñoom saa njóog ak ñoom ñëpp si ñun lañ ko royee ñooñu dañ ñoo war di jox droit d'auteur ñun gisoo ñu bëri di def topp kaa da ngay gis ñuy sol cap sol ay lakkos di jéem a comme man parce que noonu laa daan aligner ñeneen ñi jigéen ñi tamit di aligner comme Ndeye Gueye waaye ñun ñooy le roi di topp kaa ni ma ko fi njëkk a commencé. kon yow kon loo wax si diggante papa booy jinne. non nekkul loolu déedéet déedéet xam nga diggante papa booy jinne papa booy jinne ñun may nañ ko ndey gay mm-hmm. mais may ñu ko ndey gay yaxi ndey gay yi lañ ko may. ñooñu noonu œuvre nekk ci télé yi di di duul ñoom ñoo nopp ndey gay laa la wax. Ah, dégg non non bul ma ne bul tudd tur déggoo ma ndey gay may nañ ko papa jinne ba pare duñ ko may keneen. déggoo mam ndey gay maay càmmañam may naa ko papa jinne ba pare ndey ndey duñ ko muuraat si beneen jumaa jeex na ani ban message ngay nekk si réseaux sociaux yi di message bi ma lay bi ma leen lancé mooy dañuy duul loolu laa la mën a wax mo message nga soxla danuy duul laa wax luñ leen ñooñ ñëpp luñ la wax lu dul suñu yaay jigéen la dañuy fen déggoo ma ñee ñi ngi sëy seen sëy ñoom ñoo leen tas réseaux sociaux bi ñoo leen tas mais lislaam tasagu leen réseaux sociaux bi nag nee naa la bu doon diine la hmm. diggante papa jinne ak ndey gay dagana tut yaakaar naa boobu ca jokkee lay tas déedéet li ma lay wax yow dégguloo ko de ñoom ñaata yoon lañu ñëw ne tas na te du dëgg dafa bëri waaw léegi nag ñoom duñ diine duñ lislaam lislaam bi nga xam ne ci la ndey gay tënku ak papaa booy jinne hmm. boobu tasu si boog wax bi jeex na xuloo sax amu ci ñoom ñoo ko créé rek di fen seeni fen waaw loolu la daal bu li ma lay wax daal ñoo ñu œuvré bëgg bëgg hmm. wax dëgg yàlla est-ce que ñoom seen sëy yi amul problème quoi parce que gis naa si ñoo xam ne dañuy wër si mayga yi di lekk hmm. ñooñu lañu war a dem xool Aziz bak baay dem xooleel leen ndax xuloo ñoo seen jabar yi ndax seen sëy tasut wax dëgg yàlla. Ah, waaw loolu laa lay mën a wax quoi. waaw mat a bàyyi la de Jimbo. non li ma la wax nii du ko wax keneen wax naa la li ma la wax nii téere la ci yow dong laa ko waxee. Mhm. waaw papa boo jine. dégg non papa boo jine mi ngi fi mi ngi entraîné mi ngi def li mu war a def papa boo jine gaa yu bëri di wax nii ay naan dafa am defet dafa am lii ñooñ noonam yi la rek am na benn mbër nekk na fi roi des arènes huit defet la tegale. benn mbër waa déglul déglul hmm. xam nga papa booy ji ne li mu daanu nii mbër tegaleegul deux fois daan ko hmm. am na benn mbër bu fi nekk roi de arènes bi mu nekkee ci jafe-jafe bi mu hmm. nekkee ci jafe-jafe benn mbër téye na ko daan ko deux fois te yàlla mujj na ko dimbali mu nekk roi des arènes du noonu waaw loolu laa lay wax ni kon papa booy dina moom përtagul bay pëtat su fekkante ni yoon jeexul waaxusul du jeex mm-hmm. moom nag mooy bëre ñun bëriwuñ du dëgg mais tafaagay dë bi daan papa booy dina boo ko boole woon ak papa booy dina si benn néeg boole leen mbaaj mm. xam nga ni mbaaj mi papa moo koy sàngoo ah. du dëgg non papa booy dina moo mun fukki tafaagay dë dégguloo ma xam nga làmb ji ni ngeen ko defee moo yomb nit ñi fay seen xaalis ba pare bu nit ñi nee këram ngeen nit ñu dem leen ñibbi mhm. moo tax bëre ga bëre gàmbi laa gëm ñaari yoon ngay bëre doog a yóbbu xaalis bi ah. deux fois la dañuy njëkk a bëre nga daan ma dañuy suflewaat boo ma daanaatee yaa ma man su ma la daanee ñu mat si niil nañ jeex na. Ah. dafa yomb cent million benn cent millions léeg-léeg arbitre day soufflé rek kële ni kërëb rëpp rek mu dem te xanaa am loo mbër xanaa am loo mbër nit mun naa nekk ca àll ba daan mbër mhm. sàmm yii nii dañuy am lu ñu def ci mbote gis nga bu mbote mi lay layee rek nga tërëb daa di daan mhm. macha allah waaw làmb waaw mi ngi fi baxal rek kan waali waaw de moom ci la dëkk hmm? waaw hmm? non waal dañoo dépassé sa nit seen nit kay moom loolu duñ ma ko wax quoi mm-hmm. xam nga seen nit mooy ko xam ne dara lien wu leen mm-hmm. yaayam moo ma ko dénk moo ni ma mm-hmm. même bu la bàyyi na ko jàpp man waali jàpp ma ko pour mu jàpp ma su ma joxee joxu maag mu xool ma xoolu maag faale na maag faalewu maag man ma faale ko laa wax déggoo ma dénkaane la dénkaane parce que yaayam defal na ma lépp aw ma lu may dàq ci moom maag yaayam la wax dëgg yàlla parce que yaayam defal na ma euh, lu xam ni man yombul pour nit defal ma ko damay wax rek nag dëgg xoola weer bu dee day fay kër gi fayal ma école fayal ma école xale yi jox ma ne ma jëndal dund te da ca yàgg nag da cee yàgg de te ba pare nee na ma bu ma ko déggee bala hmm? bi léegi bu ma ko déggee bala noonu lay wax mus naa dem si émission tudd ko fa mu pare mu ne ma tey def nga ma lu ma naqari ma ne ko lan laa la def mu ne ma dem boobu ngay dem di wax lii yàlla moo ma ko jox nga soxla ko fekk ko fi bu ma ko yàlla joxul woon doo ko fi fekk kon waroo woon tudd sama tur te léegi kaa mu waxal benn affaire soo dematee bay tudd sama tur ma ne ko ah, soo dematee bay tudd sama tur fi ngay def sama tur defal ma fa Muhammad Rasulullaay mel na ni man nga tudd kon wax dëgg yàlla billaahi wallaahi daf may defal ba pare lànk ne duma ko wax may def émission mu koy déglu di wax ni lii bu ko waxati waxal lii bul teg lii nit bul def lii nit bul def lii nit daanaka bi muy dund sax émission yi dafa xawoon tënku parce que léeg yenn yi su ma ko waxee danaan ma noonoo lii jullit du ko lii du ko laa mhm. yaa ngi dégg mhm, waaw wax dëgg yàlla mhm. kon kooku ku baax la yaayam amoon na fu ma féete waaye nag jaaga nag euh, lebal na ma parce que boo déggee ñu naan bu ñay de xaal tubay ju yi doom jaa tax mais du moom moom xaal na ko si man ba pare moo tax waali ay yii boolewuñu mais tereewul dafa xam li ko war su ma ñëwee ne ko waal dama soxla moto mu ne ma ñaata du du calculer sax bu ma nee ko temps mu jox booy na ko demal ci gab bi génnee joxal ma jimboori bu ñëwee fekk ma si bunt bi may waxtaan sax day mer dafa ne gars yi ñoo ma téye ma ne ko téyewuñ ma maay waxtaan fii rek la temps que pour nga yeewu xoola ma wax la dara mm-hmm. est xam nga borom alal yi nekk ci Sénégal gépp mm-hmm. bëri na ci ñoo xam ne seen alal moo leen moom mais waali moo moom alalam xam nga ndax lan mm-hmm. tàgguma ko ngir sama rakk wala luñ ma ko dénk de ngir leneen wala lu ma sopp papaam man sama doom bi mujjee juddu coon sekk laa ko tudde te du kenn laa ci xaar xaaruma ci kenn parce que sopp naa ko daal sopp bu ma neex <laughs> ma yàgg ko sopp ma tuddee ko mais dama ne hmm. waale boo ko tiisee soxla hmm. da koy yëkkati si saa si jox la du xalaat ba xam moom day jeexle te ñeneen yi dañuy defa ne day jeex kon waali moom moom alalam bëri na fi ñu xam ne moomuñu seen alal danga leen tiis soxla dix mille ñu jox la cinq mille moom waali sekk da nga koy tiis soxla dix mille mu jox la cinquante mille day faj sa aajo ba romb la mais ma wax la dara waali sekk joxe gi nii est-ce xam nga dabul jaaba jaaga si wakk est xam nga jaaga borom cag-cag la jëloon cag-cag da koy duy ba mu fees muy wër kër nit ñi déggloo ma de man mii sofoor bi mi ngi may dégg yàgg na ma moom lay jox mu yónnee ma du dégg ci def lu baax ak keneen koo gis nag muy def lu ndéeg nit ordonnance da koy të mu ñëw si man wax ma ko ne ma waxal ma ko jaaga ma wax ko ko rek mu ne ma noonoo jarul sax mu may woo am ñaata la ma ne ko temps mu ne ma demal jëndal ko moo tax nit ñi dañuy ñëw ba léegi dafa ne damaa loolu mi ngi ci man te léewlu nekkatul ci man jaaga moo ko doon def mm. du woon man yal na dee di nooflaayam laayam mm, ci barki yonent bi gis nga Wally Seck mm. sonkook ak Diomaye am nañ sens bi Wally laajul réew mi bu laajoon réew mi ñu jox ko ko ah? déggoo ma de lépp lu mu xëccu déggoo ma lépp lu mu xëccu dina ko jot si yaayam booy bi du ci dara du tus ba ma ko dalee wax kañ la boobu yegg seegul fi chaque jour ma ne leen booy bii li ngeen di def nii si moom du tus lépp yaayam la lépp yaayam dafa muñ lépp de lépp la fa muñ lépp lu yàlla wax ni bu ko jeeg muñee ma may ko doom ju nii mm. yaayam muñ na ko macha allah ah, non kontaan naa si yow bu baax Kalidou yàlla na la yàlla defal jàmm mm. li ci réew mi tamit mm. xam sama li ci réew mi la parce que Fallou Seck maa moom du ay lii moo ñu boole. non sama xarit la bu ma xewlee mu taxaw lu ma xewle mu ñëw si moo tax léeg fu ma mun a nekk. waaw waaw fu ma mun a nekk léeg sax site bi bu ñëwee yenn contrat yi du ñu nangu pour yeneen kii. Mm. daf may jaral sax ma ne ko non. pour moom bu ñëwee rek ma defal ko loolu parce que ki nga xam ni. saa loo loo xewle mu taxaw. sa but bu xonkee mu taxaw. kooku amoo fayam. waaw waaw may nuyu sama rakk. yaa man bii waalee ma ko jëndal. léegi xaar ma wàll xoola euh, may nuyu ajaratu Mbengue Ndiaye maane euh, doomu Yaafa Taal. te yaa faatu di sama rak mm. yal na leen yàlla defal jàmm ak Kamara Mbay suma xarit bu yàgg boobu mm. ak Awa Mbuub sama magi bopp jooju mm. ak Moussa Cissé Awa Mbuub ak waa këram yal na leen yàlla teg loxo yal na leen yàlla defal jàmm ak salaam fu ñu jublu yal na fa yiw yàlla jublu parce que awa jar na ko wane na ko nit ku baax a baax a baax a baax a baax a baax mooy Awa Mbuub ak sama yaay jooju nekk ci ruq bi ak sama ñaari rakk yooyu ba pare bañ ma tudd seen tur ñoom tamit dama am sama yaay joo xam ni mm. buggul ma tudd turam ak sama ñaari rakk yu baax mm. yoo xam ne nii tamit ñaar ñu jigéen lañ mm. bëgguñu ma tudd seen tur ñoom tamit gudd fan ak wér rek waaw ndamak ak safoo parce que ñoom dama naan man bëgguma jaay sama ngor ñoom tamit dañ may jàppale ne ma bul jaay sa ngor ñun ay waxkat lañ ko mais ku ñuy jàppale dañ ñuy jàppale ba ñu mën a garder suñu ngor aussi si la bokk daal yal na yàlla def jàmm merci beaucoup barki yonent bi jërëjëf